waajal gan yi nekk yi waaye gan bi ak kii bi daal di ci wër yaram ak surtout jaar yi ñu koy yooyu politique def yi ànd ak politique yi nga xam ne ñoom ñoo yore gouvernement Sénégal ci ñu leen ci nekkal ci commencé ci gouvernement commune Touba bi nga xam ne moom mooy dalal muy waxtaay woo xam ne muy waxtaay woo am solo la waaye waxtaay bi ñu waxtaay lañ ko dañ ko def ci ay loolu nag dañuy dellu rek santaat ñu bokkal commission bi yëpp ci tàmbale ci président commission ak ñi nga xamante ni ne leen ko tëral ci commission bu nekk ci commission bu jaar ñoom ñëpp ñu leen sant di leen gërëm ñaan yàlla suñu borom sëriñ Tuubaa nangu suñu liggéey suñu yàgg sant sëriñ bi nga xam ne moom moo jiite liggéey sëriñ bi fekk ci loxoom sëriñ Bass ñu koy sant di ko gërëm bu baax jaay xawaayam jàpp ndaram ci liggéey euh, di sant ñëpp ñoom ñu seqal ni euh, gouverneur ak adjoint yëpp nekk ci jaay ci ne ليسوا باطلا لكن التجديد فيه وهذه قرأت في الناس لكن حتى يقوى بأن أن الجسم غير المجال. في وحدة suñu bëggee commission bu nekk lay liggéey wala lay aw doxal wala lay liggéeyal ci màggal bi ñu wax dana xaw waaye ci tënk incha allah dañu ci daal ñu ñu jàpp ñu jàpp li nga xam ne moo aju ci comité bi nga xam ne moo jiit ci liggéey bi wala bokk na ci ci biir muy communication ndax waajtaay yépp ñoo ko yëglee ñu def secrétaire général bi am ko am moom waaye commission santé moom it ñuy jamono commission pour la cellule de on test. ini anda di juga ke dalam di perayaan sebagai objek tertentu lewat bila tu ada rupiah sebab ini dia jelas itu ni sebab dia oleh itu so tak saya sedang menunggu ini banyak proses yang jauh lebih ada yang lain jika sudah sama juga

mu mel ne ci xaw ma lu ndox ci Touba ci ndox màggal metti na Sëriñ Tuuba manti na balaa waaye nit ñëpp war nañu def seen xel ci Tuuba képp doon am ndox lu màggal màggal nañu dana donc ci dëkk Tuuba yaa war a jël seen matuwaay màggal léegi nag mooy nekk mooy màggal jaay yi ñëpp ñu nekk loolu nag jafe-jafe boobu ñu jafe-jafe bu kilif yi yëgoon def nañ ko am nañ waaye nag jamono yi ñu tamit tax na ñu ci wax bari dana nekk ci ay ci wax ne nga yónnee wala na nga jàppee

activité programme bi aussi dana bëri lu bëri ci mag ngir mën a gën a jiwu leen jafe-jafe yi ci ndox mi ci ci mag wala programme spécial la woon waaw dañ ko seqoon ak effort ak commune dox bi nag yàgg yàgg ah ñun ay dongo rek lañu ay taalibe lañu yu gërëm jaar loolu ñu def boobu bu ñu ko tëralee dox nañ ci ak biir ndax bokkoon na ci camion yi teel ñëw Touba ñu joxe un numéro vert ku soxla ndox woote ca balaa màggal gee ñëw ñu ñëw may la ndox ma nga def nañ ko ba màggal bi des biir sëñ bi màggal parce que naa alxames lañ arrêté loolu ak ñoo war a duggaat ci beneen programme boo xam ne la ko ëmboon mooy ndox oto yi ndox yi dem di roote ji ci ci dëkk bi dugal ci dëkk waaye bañ di roob di dugalat ndax loolu tax ñu fa yokk waaye dañu defoon li yokk ndox mi mooy oto yi dem di rooti ci euh, forage yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw dëkk ci mayuñu ndox Tuuba di indi Tuuba waaye forage yi nekk Tuuba yépp continué ñoom di joxe ci réseau bi maanaam di joxe ci tuyau yi ñu di egg ci kër loolu moo doon wax suñu programme loolu it doon may ngir euh, tableau yi nga xam ne ñooy def ndox ci màggal bi yëpp ñoo ñooy maye ndox da ci am ñoo xam ne ay nit ñu liggéey ñoo ko moom di jaay seen ndox dañuy rooti nit ñuy rooti wala ñuy rooti kon ñooñu bu ñu root bu ñu rooti woon ñun ca biti ñooñu waaw kon dañuy ñu topp dem rooti ca biti su ko defee kon lépp loo xam ne ndox la moo ñu liggéey ci biir Touba duggaat ci biir Touba waaye kenn du ko rootal biir Touba di ko jaay wala nga koy rootal ak yokk rek nag ñu ci jégalu kilifa yi bu baax ndax ñun defar rek ñoom ñu tax a jóg mosuñu am benn yoon it mel ni mu du defar loolu it xalaat la boo xam ne jógewutoon ci kenn nit mbooloo ñoo ko tëgg xalaat ko bu jubóo ci kon loola man en tant que responsable coordinateur wu comité d'organisation ah euh, dama ci jéggalu kilifa ndax nit ñi xam ne mën nga koo rob loolu dem rootal la su la xañee ndox euh, rek ñu leen di xam ne ko tey waaye bu sañoon du beneen loola la ko dindi mooy ba baat noonu liggéey loo baat moo ko tuuti loola noonu rek la def li ci des muy euh, problème inondation yi fi am loolu yi solution yi xam ne moom la ci jël magal gi daataan am sëñ bi taxaw ci waa kanam taxaw ci état bi taxaw gis ci man def nañ ko mais loolu taw la ndoxu taw li ci ab kay mooy ñuy ñaan autorité yu xam ne yàgg ko wax léegi nawet màggal bi si nawet bi lii fi am ren yàlla bu ñu dimbalee ba ñu fekk ko ba ñu am ba ñu amaat loolu nag man koo waajal balaa màggal bi te balaa ci solution ah. lu mel na yoon yi ba tey am na ay taxaw yoon yu bari ci yéen a ko gisandoo xam ngeen ne euh, bari na ay taxaw yoon yu toj na bari na ay ay baax ay ay ay ay ibu ñoo xam ne bari na bari na ay ay ay yooyu yëpp autorité yi gis nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ne bi ci waa Tuubaa mën a dund lu dul événement fekk ci événement parce que bu dul événement sax danger la ci population waaye nag bu toll màggal Tuubaa loolu bu amee loolu la ñuy jóg ci gàttal daal man ñaari point yooyu laa gisoon warees na cee mën a kaat à addu ngir leeral ci askan wi tax askan wi dañu war a xam am na loo xam ne ku bëgg xam war nga mën a am foo ko mën a xamee moo tax wax ndax sëriñ bi la liggéey waaye sëriñ bi askan wi tax ñuy liggéey kon loolu noonu rek la demee ñi ñuy jégalu yëpp ñu bàllu ñëpp ak ñaan suñu borom mu nangu liggéey dañ fekk waat ko ay yoon wasalaamaaleykum